asalaamaaleykum le jeune gannaaw suma communication bi passé mangi ngi dikk ak toujours ci jeune. fànn bi may ñew nak damay ñew indi la ben exemple ci ben filière muy filière bi nga xamné ne yaru ganaar moy aviculture muy ben ci fukki filière ak juróom yi nga xamné ne ñoom parce que tay buma né ne projeune daf lay utal liguey, daf lay jox tay ji nga mënal sa bop, daf lay jox tay ji pour nga mëna taxaw ci entrepreneuriat mais day fekk ñu taxawal dara Dotul ay wax du ay business plan du leneen déedéet liggéey la ay projet yu ñuy teg yoo xam ne si ngay ñëw dugg ci biir ñu tàggat la ci biir nga gis si sa bopp ci biir indil njariñ sa bopp indil ko sa réew tey dama lay wax ci mbiru bi nga xam ne mooy aviculture dama lay jox benn exemple dama koy jël ci abdu abdu muy benn jeune boo xam ne toujours il faut ma dàndale ko ak fa mu dëkk Pire pir gi ngeen xam te mu nekk dans le département de Tivaouane Abdou boobu bu bëggee dugg ci lii première chose un mooy groupe projeune ci loolu la ñuy mën a tëgg cohérence territoriale bi ma la doon expliquer foofu ci pir ñu mën ci jubboog sa mairie sa département état ba fa nekk sa diaspora pour mën a taxaw loo xam ne yéen ñooñu ñëpp dina leen jariñ waaye nag dafa am fànn bu am solo mooy yow miy dugg ci aviculture te nga bokk ci groupe boobu te nga doon abdu boo créé groupe bi léegi yow nga def option option bi mooy dama bëgg a def aviculture groupe boobu am na juróom ñoo xam ne dañu bëgg a def aviculture mbaa fukk ñooñu la ñuy jël boole leen lëkkale leen ak yeneen jeunes ya nekk ak géejawaay mbooro

yaa ngi ci loo xam ne pour mu mën a uyu au niveau national il faut ñu teg benn programme boo xam ne bu bu mooy programme national mais programme boobu bu ñu koy décliner itam dafay wàcce à la base maanaam ñu wuyu la fa nga nekk waa gin yow Abdou mi nekk piir ak juróom mbaa juróom mbaa fukk mbaa téeméer ñoo xam ne dañu bëgg def aviculture nii ngeen di structuré wu waaye lii lépp liggéeyu projeune la li la projeune di laaj mooy yow créer sa groupe groupe boobu ñu ñëw saytu ko ngeen doon seen njiitu bopp bu ko defee projet mën a ñëw def ci yéen li nga xam ne mooy développement personnel ku ci nekk ci yéen def ci yéen entrepreneuriat def ci yéen synergie yoo xam ne seen groupe boobu lépp lu ñu aajowoo ci loo xam ne ay investissement la ay financement la marché la mbaa leneen ñu mën ci taxaw gannaaw premier partie bi ma la jox naka nga mën a tege sa groupe ànd ak say naataangoo léegi ñu ngi ñëw ci naka lañ lay dugali ci biir aviculture gis nga culture dafa doon benn euh, secteur bu am doole boo xam ne li tax ñu tànn ko mooy ci gàttal xoolal rek ñaata jeunes ñoo ci yëngatu ndax dafa doon activité boo xam ne boo amee vingt mille sax mën nga ko dugg parce que am na ñoo xam ne amuñu njëg pour jënd benn carton poussin mais am nañu vingt mille dem jënd au moins cinq six yoo xam ne jël nañ ko ñu xontaat ko ba mu doon ganaar yu mag yoo xam ne mën nañ ci am dara am na ñoo xam ne door nañu ak seen néeg bañ daa fanaan ñu génn ko def fa koppo dugal ci benn carton kon dafa doon loo xam ne njëlbeen la ci jeunes yu bari yoo xam ne tey jii dugg nañ ci li nga xam ne mooy le monde de la production sant yàlla loolu boo ko gisee da nga koy dëgëral mais dëgëral boobu bu ma xoolee tey ndaw yi nekk fépp ak nañ ciy yëngoo ak coono ya ñu am tey problème bi nga nous mo gëna affaires mag ci affaire aviculture du problème aliment parce que nous avons tay ay structures yu mag yo xamné ne dinañ indi aliment te tay structure yoyu la nga xamné moy sen capacité de production qui est ñu ci sax ci 60 kon fofu amul problème dans le milieu de l'accouvage manam ñi nga xamné ñoy défar poussin y a pas de problème parce que tay avons sédiment sédiments, tay ay structuration yu taxaw dem nañ ba am ay élevage de reproductrices.

bu ñu ne la tey jii plus de trente a quarante pour cent ñu ngi koy def ci biir dëkk bi maanaam dañuy dund ak ganaar yi te kooku dafay indi ay problème de santé publique duñ ci yëg si mais li ma la mën a xamal mooy bloqué na ay jeunes yu bari parce que ko nekk wakkaam mbaa feneen mënul fa génn parce que mënul dem feneen parce que amul place léegi nag loolu dañ koy régler kon dañuy ut ay poulailler de production pour jeunes yi nga xam ne moom laa wax dans pro jeune yéen ma mën leen accompagner dooleel leen ci lépp dugal leen ci production mais production boobu bu ma leen ci dugal doon seen njaatige mais dama leen di jox la leen jàpp du ma ñëw nag jox leen financement parce que ñi joxoon financement yëpp demul lool du ma ci yëg mais tey damay ànd ak yéen jox leen loo xam ne ay appareil de production da ngeen dugg ci biir ma gën leen si tàggat ngeen gis si seen bopp kenn du leen ci fayloo ay bor keneen du leen ci dugal ay problème te dinañ leen dugal ci lu mucc ayib loo xam ne di nga indi njariñ si sa bopp indi ko ci réew mi donc problème bi tey jii mooy poulailler d'élevage Pour d'élevage. La poulailler d'élevage, supposons que tu avez 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, dit si tu tabac bâtiment pour Melni, mètre carré, tu ne peux pas prix euh, terrain, le matériel, mais minimum, tu frais 30 000 par mètre carré, à peu près. Madame vous avez 200 000. deux cent mètres carrés di nga ci def à peu près six millions six millions tey bu fekkee ne da nga ko bëgg a dugal ci sa six millions tey bu ñu ko waree def ci yow pour nga mën a insérer wu dafay doon loo xam ne dafa diis bu ko defee loolu dañ koy structurer neneen li nga soxla tey jii mooy nga mën a am surface deux cent mètres carrés yi nga am ko ba nga xam ne di nga mën a dugal dawal deux mille poulets bande bu nekk bu ko defee nga yéeg noonu ndànk-ndànk. mais pour nga am loolu au lieu que ngay frais ngay dugal 6 millions dafay dis ci yow li ñuy def dëgg ci njalbeen mooy tey ma fexe ba nga mën a dugg ci 200 mètres carrés yi parce que lii mooy affaire bi boo ci xësee dugg ngay rouler ndànk-ndànk di avancer ndànk-ndànk di nga dem ba am sa bâtiment 400 mètres carrés mbaa 600 mètres carrés fii boo ci dooree dinañ mën a ànd ak yow accompagner la parce que accompagnement bi dafa bari ci liggéey bi la mooy li nga xam ne moom ngay def pour mën a produire ganaar bi mais ganaar boobu après dañ koy jaay parce que tey bu ma la accompagner ba bàyyi la ci marché bi nga dem mais manoo jaay parce que bu ma la accompagner yeneen mille jeunes ñëw naka ngeen di def ci marché bi ça fait plus de 200 000 kan moo koy jaay donc lu nekk dafa am fu ñu koy teg donc li am solo 200 mètres carrés pour yow mooy li nga xam ne yow moom laa lay toppatool ni ma la koy toppatoolee mooy. duñ la tabaxal deux cent mètres pour yow damay dem uti yeneeni financement yeneeni partenariat yoo xam ne dinaa ci ñëw ci kanam parce que wax naa leen ne leen ñun amuñu fenn fu ñuy jële xaalis lu dul ci suñu réew lu jul ci sénégalais yi bu ko defee koom bi des ci suñuy loxo léegi yow pour sa mbir deux cent mètres carrés yi xam nga waxoon naa la li nga xam ne mooy objectif global mooy tey Sénégal nga ne damay am objectif pour def nangam ci ginaar Lors de la décline de 10 mètres carrés. Pro jeune, objectif, objectif pro jeune, qui agriculture, moins 1 million de mètres carrés. 2 mètres carrés. Hamgeli Barinade. Si vous voulez financer, ça fait minimum 30 milliards. Ce que vous savez, 30 milliards. Ce que vous savez, c'est bâtiment yi construction bi waaye gis nga réew danga koy dàndale ak la nga xam ne mooy dayoom gis nga lii du dara ci yéen le jeunes du dara ci Sénégal te dinaa la wax fiñ ci jaar teg ko point par point yàlla indi ci ndimbalam léegi yow ci biir un million de mètres carrés yi si ngay am sa deux cent mètres nga mën si démarrer si ngay am suba sa quatre cent mètres yi nga xam ne moom nga soxla pour mën a dem si nga am sa 600 mètres carrés pour mën a dem ba nga xam ne lépp loo soxla ci production di nga ko mën a développer mais ci lii lañ la mën a dimbalee mais lii foog ñu teg ko dinaa ci ñëw ci beneen communication pour wax la nii naka lañ koy financer mais dama lay wax yow au niveau micro maanaam yow Abdou lii buñ ko tegee naka nga ci mën a gisee sa bopp mooy xam nga léegi au lieu que ngay def 6 millions pour am bâtiment bi léegi man damay lijjanti pour 2000 ginaar yi nga xam ne moom nga war a def fii muy 2000 poulet. man dama lay jox fond de roulement bi nga xam ne fond de roulement mooy tey aliment mooy tey poussin mooy tey ji prophylaxie mooy prophylaxie ok mooy tey jii mbooleem frais yi nga xam ne moo ci aju pour que nga mën a am ganaar boo xam ne tey dina ma 2 kilo fii laa lay financé parce que l'exercice le 60 jours maximum kon fond de roulement moom la lay utal jox la ko ba nga ne tey am problème aliment poussin prophylaxie ak yëpp lii yëpp nag buñ ko comme da nga war a def benn 60 jours a un poulet de 2 kilos Il day laaj une organisation boo ne poulet bi nga ne jar 2 kilos il faut que mu lijjanti. gannaaw ma jox la batiment bi nga dem yar ci ma lijjanti aussi en aval boo génnee lii fan lay dugal man ganaar yi kooku muy beneen organisation loolu mooy projet donc yow da ngay nekk ci li nga xam li nga man ñu programmer ba nga xam ne tey say ganaar bu yëgsi à terme am na lu ko war a jël dugal ko ci marché bi loolu beneen affaire la loolu mooy ñoŋal li ma lay jox fii ci fonds de roulement nga man ko fay parce que buma ma la wul fi ngay jaayee kon fi man na soxé bu boba damay perte mba bok financement biñ la jox du ñom day am problème lool moy affaire bi donc fi dañ lay jox li nga soxla ci bâtiment jox la financement bo xamné ci yow moy fonds de roulement bi ñu and lepp nak ci bir accompagnement bi waaw accompagnement bi moy loolu parce que dafa am solo tay ji dañu nek ci ay ci ay environnement économique yoo xam ne concurrence dafa metti koom-koom bi dafa bari ay yëngu-yëngu ay choc exogène yoo xam ne mënuñu ko gérer léegi boo doonee yow rek mënoo gérer loolu parce que da ngay tuuti ci loolu yaa ngi nekk ci benn domaine boo xam ne aviculture yaa ngi jànkoonteeg ñu mag ñoo xam ne comme NMA comme comme Avicenne comme Sedima mais amoo doole il faut que donc doole jooju ñu indi ko ci yow ngeen booloo yow ni ma la waxee Abdou ngeen doon junni yoo xam ne dañuy taxaw lu mel nii bu ko defee ci li ñu am gouvernance pour un million de mètres carrés ci bâtiment ñu mën a produire tey jii mën a dugal ci marché bi dix mille tonnes par an bu boobaa foofu la doole di neexe foofu la doole di ame njariñ mais doole boo xam ne dafay defar réew mi bu boobaa yéen jeunes yi li may wax ne projeune pour man leen jox emploi pour man leen jox tey ji activité pour que ngeen mën a am koom ak ngooñ mais jàmbaar ci li la mën a mais kon du programme yo xamne dañuy ñëw rek jox la financement na demal bo waré def aviculture manu dem fenn parce que tay li ñu jot def moy lolu donc Abdou japp ko nonu dina ñëw ak yow ci yeneen communication pour que nga xam exactement affaire bi niñ ko donc ci agriculture fànn bi nga xamne moy élevage ni lañ koy tëralee jox la des bâtiments d'élevage jox la financement bi nga xamne moy fonds de roulement jox la garantie au niveau de l'écoulement pour que nga mën a jaay say ganaar jeex na ñu ànd ak yow jëm ca kaw lii ñëwoon nga dugg ci fa nga nekk ak fu manti doon dugal nga dem ma yeneen jeune ngeen ànd boo leen àndee ngeen taxawal leadership boo xam ne di ngeen xam li ngeen bëgg ñu ñëw fekk si la ngeen soxla ñu ko defal bu aviculture la nii lañ koy defee dinaa ak yow ci yeneen fan ci càq-càq ci ñi nga xamne moy le digital ak l'agriculture, agriculture naka lañ ko wara defé point bu nek tay bu ñu wara par exemple des chaînes de boucherie naka lañ ko mëna defé naka lañ koy structurer ak ñen ñoo ci dugg ziar na la.